waa c'est le c'est c'est c'est ce samedi si le 20 le 20 bi incha allah lañ ko war a amal euh, comme niñ ko tàmmatee amee mooy onzième édition ñu koy ñu koy amal yaakaar na at yee lañ ko xawul def rek ndax euh, covid bi ba mu fi duggee woon ñu tegoon ko ndax euh, l'urgence c'était de faire en sorte Sénégal ñëpp mën a nekkaat ci wér-gi-yaram ndax ce qu'on veut nous au la convention que charte yi xam ne moom moo euh, suivre convention moom lu leer la bokkut ak yeneen <laughs> yeneen charte yi juste pour pour tooñ mais c'est juste mission yu ñu am ñaar la mooy formation initiale ak formation continue parce que ñun lu ñu bëgg mooy journaliste ak bu mu mënti door mhm. d'habitude nit yi dañ daan tooñ bu njëkk ba da ngaa dégg avant ñuy wax léegi assainissement maintenant on en parle d'habitude dans on disait il faut que ñu génnee ñi xam ne du ñu ay profession ci Facebook ainsi de suite ainsi de suite donc ñu ni peut-être benn métier bu libre la boo xam ne parce que xel moom mooy tax itam nga def ko parce que amul lu gën libre journal tax li nga yëg li nga xalaat li xam ne gis nga ko ci ay fait foofu peut mën nga fa def ay commentaires léegi ñu ni ñun il faut ñu encadrer ko encadrer ko comment permettre ñi xam ne dañoo bëgg dugg te amuñu possibilité bi ñu leen di defal ay formation ba convention yoon ci biir réew mi ñëpp mën cee jëf ñu ay plusieurs journalistes léegi doon nañu ay taskatu xibaar te ci suñu loxo lañu jaar donc la c'est juste montrer aux Sénégalais que euh, ñi wax ne média mainstream dafa dee c'est pas c'est pas le cas. ils ont tort. c'est pas le cas oui. yi. fii au niveau de TV je pense que chaque semaine ñu gis grand angle yi xam ne ñoo ngi ko fiy def c'est pas seulement des comptes rendus c'est pas des seulement des extraits yi xam ne dañ koy def c'est pas seulement diw saaga na diw diw wax na diw lu ñaaw y a des journalistes qui partent sur le terrain gis naa fan yi am dem ngeen fi dans le dans dans dans le nord-est dem ngeen ci mines yi dem ngeen euh, au niveau de du sud dem nañu zone yu ne. Mhm. ay journalistes yi fa dem te yenn saa yi joxe seen bakkan yenn saa yi seen xaalisu bopp la ñuy jóg sax pour dem defe ji seen ay reportage pour lan pour wan sénégalais ne. y a des choses qui sont à l'intérieur du pays yu ñu war a mën nag la ñu bëgg ñun di ko. glorifié chaque année ti wan mhm. journaliste yi ne non c'est pas un journalisme assis qui existe au Sénégal il y a mhm. a un ñu